wa taabiina lahum bil taabiina lahum bil huda ila yawmi ddin wa radiya allahu an alqutbi almaktum walbarzaxi almaxtum sayidi ahmad dabna mahamad dabna salim tijani wa an sairi xulafaihi alayhim ajmain sëriñ bi ñu ngi lay wax salaamun min allahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu di la nuyu di ci teg gan ñu tedd yi nga xamante ni ñoom nga am tabarakallahu yow ak say rakk duma dugg ci lim waaye bu jotee da nga ko yëgal mbooloo mi kàddu gi may wax nag dama ko wax ci yéene comité d'organisation bi nga xamante ni sunu wéyjur alxalifa seydi aboubacar si mouhamadul mansour moo ko taxawal wax nu man ak Mouhamadul Habib ibnu Seydi Mouhamadul Mansour borom daare yi xalif général ni nanu àndandoo ak Moustapha Bossam dem ci bàyyi Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz bi ñu demee booba mu ngi nekkoon ci nu tànn tem ba nu demee ca moom mu seet comité kulturel bi nga xamante ni mooyor yor thème yi proposé ko mu jëlal ci bii nga xamante ni moom la Abdul Hamid junj léegi mu di kàddu gi yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni innama bu'istu li utammima makarim al axlaq dañu ma yónni ngir ma ñëw mottali jikko cang ko tabarakallahu ñu jël mu di pam nu àndandoo dem ci comité bi jox leen ñoom ñu liggéey ci ci la liggéey forum yi ci la ñu liggéey it nga xamante ni moo jaadu ñu war koo jox mbooloom senegaal waaye mbooleem bitim réew fàtte li wat pour ñu taamu delluwaat tukki ci jikko yooyu nga xamante ni Abdul Hamid tudd na ko léegi ci kàddu Seydi Hajj Malik mu di fukki jikko yoo xamante ni bu amul boo moytul sunu pénc dafay nërmelu yàlla nañu ci yàlla musal loolu nag incha allah Serigne maxtar kebe du ñàkk dana ci ñëw waaye ñu wax la rek ni nous avons entamé cette organisation avec la tenue de deux CDD, un CDD et un CRD au niveau régional ba nu ci jógee ministre bu tedd bi di Jean-Baptiste Tine woo nañu ci Dakar nun comité bi ak tous les chefs de service régio régionaux ñu àndandoo pour waxtaanee lu jëm ci saytu gàmmu gi ñu bëgg laa wax rek ni la ministre bi lépp loo xamante ni dafa concerner réussite u gàmmu gi sur le plan sécuritaire sur le plan de la santé sur le plan de l'hygiène ku ne xam na ni nawet la ñuy jënkonteel te nawet ku ko tudd tuddaale taw baa ngelaw baa naaj wu tàng wala feebar wala jàngoro yuy raam te booba sunu continent mu ngi confronté wu ci ay jàngoro yuy wàlle wax nañ ni lépp lu aju ci wàllu woowu avec le ministère de la santé taxaw nañu taxawaay ba gën a rafet dans le domaine de la sécurité li mu déployé ci ay agent yoo xamante ni boroomi tenu lañu ci wàllu police ak gendarmerie ànd ko ak armée bi tabaarakallahu yaatu na loolu pour lu mën a rek teeru dalal ak fàgganiku lu jëm ci wàllu kaaraange askan wi ñëw ci Tiwaawan ku ne xam na ni mbooloo mu tol noonu dalal leen ñu dal jàmm yombul waaye am na benn bu ma ci bëgg a wax mu jëm ci wàllu accident yi am ci jamono bii ñu constaté ko ci réew mi yàlla dogal na li mu nammoon nga namm ko moom xalifa bi mooy lan nañu def gàmmu gi te du am benn accident waaye alazimatu lil abdi wal qadaau lillah yàlla li mu ci dogal boobaak léegi ñu ngi jënkonteeg moom waaye ragal-ragal amagu ci ñu wax la taxawaayu euh, Dakar dem dikk ci wàll waaye wax la itam chauffeur yi moom ministre bi nu mu waxtaaneeg ñoom ba sant leen ñaan leen ñu digal chauffeur si ñu ñëw ci jàmm indi nit ñi ci jàmm delloo leen ci jàmm te ànd ak dal bi mu war a àndal ak teey ak yar ndax yar lu mu duggul loola yàqu tabarakallahu sëriñ bi loolu gis nañu ministre bi di ministre de l'intérieur taxaw ci taxawaay ba gën a rafet dalal nu au ministère waxtaane problème yépp amoon nañu njàqare itam ci wàllu économie te mooy denrée yi nga xamante ni moom la pèlerin yi soxlawoo biir Tiwaawan bi nu ko yëgee signalé ko le ministre de l'industrie Serigne ngay Diop bi tabarakallahu moo àndandoo ak ministère am yi amoon ci ay yennati denrée lu ci ne joxe na ndigal pour ñu lewe ko dugal ko ba mën a approvisionner le marché ba marché bi yaakaar naa ni am na lu ma wan keroog président COSCAS ci déchargement wu pomme de terre wala oignon bu ñu indi te fekk na ci biir Tiwaawan la te booba ci ñaari fan la toll yéwén yéwén googu itam mu joxe ci ay ndigalam wëlbati ku ñëw ànd ak boroom réew mi wëlbati ku ñëwaat teew nu wax la taxawaay bi nga xamante ni def na ko ci wàll woowu ba ragal-ragal yi ñu ci amoon yépp wàññiku na beneen bi ñu di ko tudd mu jëm ci li nga xamante ni mooy chef de service yi nga xamante ni ñoo aju jëm ci lépp loo xamante ni luy jàppale gàmmu gi yaakaar naa ni li nu ci jot a gis boobaak léegi ñu doxal liggéey bi mu nekk li xaw a jafeñ nun ak naatagoo yi nu yàlla booleel ñu ànd ak ñoom ci commission d'organisation bi sëriñ bi dañu lay wax rekk ni la li nu ci doon sàkku daal lu ci bëri mën naa wax ni yéwén na la ca des nag yàlla rekk moo mën a matal yàlla na nu yàlla boole jàppale ci li ci kanam te lépp loo xamante ni nekk na wàññiku wàññeen ñu jéggal lu ko ndax nit du mat te nit bu matul ah la muy def il faut mu wàññiku wàññiku pour wax la ni daal comité bi ñu ngi tënkuwaat feeñal la taxawaayu sunu kilifa yi ngeen booleel. booleel. lay wax ni yëgunu benn yoon benn gàllankoor ci ndigal yi ñu joxe. ba yëg si fii ba tey jii ñuy wax lu jëm ci wàllu gàmmu ñu ngi lay wan ni daal euh, comité d'organisation bi am na bépp cant jëmale ko ci le président Mame Ousmane mi nga xamante ni moo jiite le COSCAS ànd ak Abdoul Hamid mi doon wax muy la communication avec la Zawiya Tijaniya ak yeneen mbooloo yi nga xamante ni ñoo séq saytu wàllu gàmm wax la nit kër gi képp kuy njaboot te di borom mën-mën rek fekk ngenu ci comité bi àndandoog nun ci terme de référence yi mu tegoon def ca lu la war ba def ca lu la warul waaye ci sa kanam ñu tuddal la le maire de Tivaouane El Hadji Demba Diop Sy moom it desalul benn kàttan pour nu mën a yegg fi nu yegg tuddal la it el nga xamante ni sunu doomi bàyyi lañu ak alxaaji maxtaar njaay ci wàllu malikiya lépp lu leen waroon def nañ ba def lu leen warul kon nag ñu ñaan la nga ñaanal leen yal na yàlla gën a samp seen teranga te barkeel seeni yëngatu te sàmm leen musal leen te may nu tawfiixu fekki lépp di la wax ni boo demee ci sa kilifa sa mag sunu wayjur sunu nijaay sunu maam cheikh seydi aboubacar si mouhamadul mansour ni ko nu ngi takku ànd ak képp kuy njaboot doon benn say pour fas yéene li mu mébét yàll na ko yàlla yeggaleel mébétam nu duggaale ci biir mébétam yàll na ko yàlla gungee ndamam nu duggaale ci biir ndamam yàll na ko yàlla dolli wér tabaarakallahu defalaale ko képp ku tëdd ànd ko ak rakkam yu tedd ya sëriñ Maodo Abdoul Aziz sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz ak yow mii nga xamante ni tabarakallahu yaay sunu lépp di sunu baay yàlla na la yàlla dolli wér te mottalil la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Je voudrais juste compléter euh, la liste euh, de la délégation gouvernementale. Monsieur Ousseynou Ly, ministre conseiller en charge de la communication et dans la délégation. Elle n'a pas été mentionnée dans la liste. Ousseynou ñoog moom ñoo bokk lii tabarakallahu mu nekk suñu bokk bokk ci xadra bi bokk ci lii ñuy def macha allah ñu teew ñu feeñal teewaayam ci euh, euh, délégation bi ñu tuddi euh, ambassadeur bu Arabie Saoudite yàlla dafa dogal liste biñ ñu jox dañuy ci fàtte mentionné turam ñu euh, nuyu ko feeñalal ko cofeelu alifa bi Serigne Babacar Sy Mansour ci alaaka bi nga xamante ni Tiwaawan am na ko ak royaume d'Arabie Saoudite excellence soyez-en remerciés ñu ngi ñuy wax aussi que j'ai une délégation de la Turquie ki est présente Nous souhaitons la bienvenue à la délégation euh, donc de la Turquie présente ici. La Turquie qui est l'un des pays amis et qui a beaucoup contribué dans la construction de la grande mosquée de Tiawan, la grande mosquée dont les clés ont été remises au Khalif Général de Tijane hier. Tabarakallah. Donc, euh, euh, la délégation turque Euh, soyez les bienvenus à Tivaouane voilà un peu les oublis que je voulais aleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëñ Abdou Hamid mbokk yi dégg ngeen Serigne Moustapha Sy Al Amine ñu koy jaajëfal waaye di jaajëfal sëñ Habib bu sëñ Mansour borom daal ci ni mu ànd moom ci liggéey bi ñoom ñaar yàlla na leen yàlla gërëm seen maam barkeem yàlla na wàcc ci yéen bokk na ci li sëñ Abdou Hamid doon wax léegi euh, sëñ euh, Haj Malick Cissé bu barkeem yàlla na wàcc ci yéen bi sëñ Pape Abdou Cissé xalif général bu Pire ak sëñ Bara Laat kon dañu jox kàddu gi ki nga xam ni moo fi représenté sa majesté Mohamed VI roi du Maroc Badruddin Mohamedine waaye nee nañ ma représentant mooy wax jox ko mu jël kàddu